constitution Sénégal may na nit ku nekk lim gëm mu dund ko jullit bi lim gëm muy diine lislaam moo ko sant mu muuru donc école bi amul sañ-sañ def réglement boo xam ne dina ko tereel parti boobu ci diineem ndax constitution bi moom moo ko may réglement intérieur tiimul constitution constitution moo tiim kenn eh, règlement intérieur mhm. donc règlement bu intérieur bu ñëwee mu mu mu euh, niriwul ak euh, wala àndul ak constitution moom la ñu war a changer mu ànd ak constitution bi donc euh, loolu gis naa ne warta am état wala amuñu ci droit état fa war a jël responsabilité am mhm. ndax foofu moom moo fa mën a def dara geste bi rafetul fi mu ne état bi la ñuy ndax pays boo xam ne majorité bi jullit lañu jullit lañu quand euh, ay gestes yu mel nii actes yu mel nii état daf ci daf ci war a jël responsabilité ndax euh, dafa am lu ma yàq ñun nag malheureusement euh, yenn saa yi da nga gis sénégalais boo xam ne jullit la sax de mais dangay laaj yow ban esprit la yore ndax ku dund Sénégal fii. majorité sénégalais yi nekk ay jullit ñuy muuru li fay muuru ni mu bëree euh, nga dem ba yow muuraayu lislaam kese moo lay génne du muuraay xam nga xam nga mbir mi du muuraay moo leen di gêné déedéet comme ni nga ko waxee sànq euh, jigéen chrétien yi dañuy muuru mm-hmm. loolu gêné leen mais muuraayu lislaam bi moom moo leen de gêné mm-hmm. donc loolu euh, da ngay gis ku yore esprit boobu euh, même ci ñi euh, euh, sol lu gàtt sax dangay gis koo xam ne bu gisee lu sol ku sol loo xam ne fu ko na soxlaa la yem daf koy gêner mu wax ne dafa cëkkal mais pour temps footballeur yëpp dañooy cëkkal ñoom ñëpp dañooy cëkkal <laughs> waaw de man masuma gis ku ku wax ci biiru cëkkal ñooñu donc bu bu cëkkee te nekkul Euh, ndigal yàlla ak yonent bi lañ ci topp du la gêner mais bu jëkkee mu te fekk ndigal yàlla dañoo jéem mu mu gêner la donc loolu ku mu nekk ci xelam war ngaa laaj yow sa bopp ban esprit nga yore ndax esprit sénégalais nga yore itam ndax amoo allergie contre diine mm-hmm. question la